ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن, ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا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 yal na yàlla def ko muy mag ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam euh, ñu ngi jiital ci nuyoo bi la xalif général bay Serigne Assane Seck di ko ñaanal yal na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko euh, ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam ak lépp lu mu jaboote ci moom la ñuy jaar jël nuyoob xalif généraux yi nekk ci réew mi teg ko ci loxoom waaye wàcc fii ci biir Canaba Euh, nuyu njabootam euh, jiital ci Serigne Cheikh Amadou Seck imaamu ratib bu Canaba ak imaam yi mu àndal euh, ci grande mosquée ak mosquée yi nga xamee ni ñoo nekk ci biir Canaba wala bitib Canaba di nuyu Serigne Alsane Niana Seck chef de village ak chef de quartier yi mu àndal ci liggéey bi ak population bu Canaba ak mbokk jullit yëpp ñu leen di nuyu di leen ziyaara Euh, di jaajëfal tamit internet yi nga xamee ni saa su nekk ñu ngi am mbégte di ànd ak cana euh, Thiénaba TV ak organes yi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ci biir cana ba di liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu am am solo la euh, jëlaat nuyoo yooyu yëpp nag teg ko ci loxol Baye Serigne Andala Cissé mi nga xamee ni moom mooy xalifa Mame biraan Cissé macha allah toog uuf njaboot gi yàlla na fi yàgg te wér. Euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam su ngeen gisee ñu nuyoo noonu nag ngeen xam ni euh, daa euh, institut islamique Cheikh Aboubacar Cissé moom moo woote bisam bu mag bis bi kañ la dimanche le 14 mai 2023 mu nekk sorti 11e promotion Euh, ñu war koo def fii ci buntu daara ji fi ñu ko daan def di ñaan yàlla rek yàlla yóbbuñu ci ak jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi euh, ci loolu la ñu toog ak euh, ki nga xam ni moo fi toogal njaboot gi toogal fi Baye Serigne Andala Cissé waaye toogal fi kilifa yi muy Serigne Alpha Cissé macha allah moom moo leen fi toogal moom mooy yëkkati kàddu gu njëkk ci waxtaan wi. Euh, bu ko defee rek ndigal li nga xamee ni jóge na ci kilifa yi ak li nga xamee ni euh, kàddu kilifa yi moom moo koy yëkkati su daaneelee oustaz Mame Bocar Cissé euh, mi nga xamee ni ku ko xam xam ko ci daara waaye tey ñu ñëw ci daara ji nga xamee ni euh, moom moo nekk directeur ca franco arabe ba moom euh, dina yëkkati wax programme bis bi euh, macha allah waaye waxal ñu tamit ci franco bi nga xamee ni macha allah mu ngi fii ci institut Cheikh Aboubacar Cissé moo andi ci ay waxtaan su daanelee Modou Mburox Cissé mi nga xamee ni fii la jaar ci institut islamique Cheikh Aboubacar Cissé moom mooy yëkkati kàddu képp ku mas a jaar fii di góor di jigéen. Eh, masallah mom moy yëkëti seen kaddu wax ñu naka lañuy organisé ak naka lañuy waje bis bi waye goor baxna jigen baxna présidente bi nga xamé ni mom moy yaayu ndonga daara yi and ko ak ñim ko andal muy soxna eh, noy sek masallah mu bay cheikh amed tidiane eh, dina yëkëti kaddu go xamni dina ci mobiliser wat ñi nga xamni ñom la andal liggéey bi sekk ko ak ñom su daanelé soxna faatu Guèye mi nga xam ni mooy secrétaire am moom tamit dina ci toftal ay kàddu mu nekk kàddu woote waaye su daanelee Mame Binte Ndiaye mi nga xamee ni euh, présidente muy soxna Mbenoy Seck euh, am na lu ñu ko chargé ñoom commission féminine bi moom dina yëkkati kàddu rek am lu mu joxal euh, jëmale ko ci institut islamique Cheikh Aboubacar Cissé su daanelee ki nga xamee ni macha allah moom moo ŋànk daara ji jiite njàngale mi euh, muy euh, sëriñ daara oustaz Mouhamed Lamine Cissé moom tamit dina ci teg ay kàddu bu ko defee lépp loo xam ni des na euh, ci lu ñu war a xam ñu dina ko dina ñu ko feeñalal Euh, bu ñu jógee foofu nag moom mu daaneel kàddu macha allah dinañ def ab doxantu boo xam ni dinañ dem ci franco arab arabe bi ci annexe ba bu ko defee rek ñu wan leen ko jëlal leen fa ay euh, interview euh, bu ko defee rek muy mbégte moo xam ni dañ koy partagé kon loolu moom mooy woote bi ma fàttali ni bis bi dimanche lay dajeel 14 mai 2023 fii ci Thiénaba Seck dëkku maam Ahmadou Ndak Seck kon kàddu gi mu ngi jëm ci Baye Serigne Alpha Cissé mi yëkkati kàddu kilifa yi yëkkati kàdduk njobootu Mame Birane Cissé asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi ci turu Baye Andala Cissé ñu ngi leen di nuyu ci di leen ziara di di jiital ci nuyoo bi Baye assan Seck xalifa général de Thiénaba di ko ziara di ko baal àq di ko balu àq di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole jéggal di nuyu sëñ euh, Alsane Ñaan Seck chef du chef du ak sëriñ Seexu Amadou Imaam di nuyu mbokk Thiénaba yëpp di ziar mbokk yëpp eh, di leen wax ni Baye Andala Cissé mu ngi leen di nuyu ca di leen ñaanal yàlla fan wu gudd wu ànd ak wér eh, dañoo yónni nag yónnent boo xamante ni eh, daa bëgg bis bi ñëpp xam ni fonk na ko lool donte li mu bëgg a def lépp ak njabootam ñu ngi ko koy defal waaye mu jiital ay ñaan. jiital ci euh, boole tamit ak ab woote boo xamante nii daa bëgg mbokk yëpp xam ni moom euh, woo na ñëpp ndax kenn ku ci nekk dalaa waroon na bind leetar wala mu jël carte yónnee la ko waaye xam na ni ay njabootam dinañ ko ko defal ndax réseau bi ak ci nja ci njabootam lañ la ñu bokk ca ñoom yaatal nanu moo tax mu bëgg a jaarale woote bi foofu di jiital ci woote bi euh, sunu dëkkandoo yi ñu jege. muy waa xay babal ak waa kër may sa njaake ak waa kër magay ak waa Touba Guèye ak euh, waa kër Ibra Ñaan ak waa Aneen waa kër Mamour waa Cooti waa Ngomeen waa kër Aatu euh, waa kër Banda Ñang ak waa euh, kër Magay Ndaw ak waa waa Jaayaan kër Njaga ak waa Cawaare ak dëkk yi lu ñu wër yëpp fu xel mënta mënta mënta àgg it ñëpp xam ni woo na ñu jege waaye woo na tamit ñu sori eh, ñu ngi woo tamit suñu mbokk yi nekk mburoox eh, ndax dañ daan laaj ni nañ leen nañ leen ci boole kon ñu ngi woo waa mburoox yëpp eh, di woo Baye Mor Cissé waa ané nit ñu ngi woo Baye Mor Cissé di ko jiital ci woote bi ak Baye Dame Cissé bu béer ñu ngi koy woo ak waa béer yëpp sëriñ Ali Ñang kër Banda Ñang ñu ngi koy woo soxna Ramata Cissé mu Baye Talla Cissé ak soxna Ramata Cissé mu Maam Biraan ca Njaareem ñu ngi koy woo di woo waa bàyyi euh, Baye Gora Cissé ñu ngi koy woo ak waa kër Baye Ali Bey bàyyi wuñu kenn ñu ngi woo bàyyi Baye euh, euh, sëriñ Yoro Sawaare ca Cawaare ca di ko xamal ni ko bis bi liñ ci am la moom la ci am di woo tamit sëriñ Sawru Cissé ca Mirina waa Mirina ca boori Tiwaawan xam leen ni bis bi ñoo ko bokk bàyyiwuñu kenn sëriñ Baye Moussa Seck bu Mirina tam ci Thiénaba sekk ñu ngi koy woo te di ko xamal ni ko bis bi li ci Baye Andala am loolu nga ci am ak waa Thiénaba sekk ñëpp sëriñ Bamba Ñang mu Baye Mor ñaŋ euh, ñu ngi koy woo euh, ci turu Baye Andala Cissé euh, di woo tamit sëñ Khalifa Cissé Eh, sëñ Talla Cissé daa mënut a nekk fii waaye kon eh, lépp moom moom moo moo ko koy defal eh, kon ñu ngi woo daal mbokk yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ñëpp ñu ngi ci biir woote bi. bis bi neex naa neex naa fàttali wàcce na ba ndax dañ ko def muy seen bis ñu ngi ñaanal ñëpp di jéggulu ñëpp lu ci manqué sëñ Daara incha allah dina ko mottali waaye baa àndal daal ñu ngi leen di gërëm ca di leen ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla. يالنا يالا بول نيو ديمبالي سي دراي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشيطان الرجيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله الله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم صلى الله على حبيبنا قدوتنا محمد الامين وعلى اله واصحابه ومن ترسم خطوه باحسان الى يوم الدين وكجل نيغ لين دي نيو دي لين السلام عليكم ورحمه الله دي جيل نيو بوبو صفكو تي نيو باي الفاهم Cissé mi doon wax léegi turu njabootu maam wàcce ko ci xalifa général ba Alxasan Seck sëriñ ñaana imam ratib ak uh, àdduna bépp média yi uh, ak ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi suivre Thiénaba TV ak Thiénaba 24 Shamsu TV Gindiku TV ñoom ñëpp ak Gindiku FM uh, di ñëw rek incha allah di wax ci programme bi nga xamee ni mooy programme conférence bi ren comme ne ko El Hadj Ndiame waxee mu nekk. onzième promotion bi nga xamé ni dañ ci génne ñu mokal alcorane te fassiyéné ne teral yàlla dogo ren ñu wutal programme bi ben thème thème bi mooy asilmul ijtimaai wa muqawwimatuhu lolu moy thème ren bi pour une pour une paix sociale quel soubassement jamu penc mi ak yikoy deugural lolay thème bi thème bobu nak mom lañ centraliser def ko ay ay patch yu bëree bëri euh inshallah dina ñëw ci loolu mais ren loolu moo lu yàlla dogal tamit ñu am fukki ndongo ak ñeent yoo xam ne mokkal nañu nañ alquranul karim euh, loolu la daara ji indi ren ak beneen programme boo xam ne dana jóge ci franco bi dinaa ci ñëw mais ci tënk rek euh, thème bi loolu mooy thème ren bi bëgg tamit ñëpp teewe ko incha allahu taala euh, bu ko defee yàlla dogal programme bi ni ni ñu bëggee mu tëddee ko ren mooy ñu gën a teel incha allah bëgg nañu 8 xale yi génn. bu ñu génnee mise en place bi entre huit ak neuf bu ko defee neuf heures programme bi daal di tàmbali xale yi daal di tari euh, ak seen i seen i yëpp ñu dugal ko ci biir bu ko defee njàng mi tàmbalee neuf ba crée une ci bëccëg bi incha allah treize heures bu ñu fa jógee it euh, doo ko dugal nag ñi nga xam ne ñoo mokkal alxuraan muy fukki gawar yooyu ak ñeent ñu dugal leen euh, daal leen di déglu incha allahu taala waaye ci biir balaa ñuy joxe kàddu yi dana am ay ay ay ay kii ñuy def ci biir ay programme taalif yi dana nekk ci biir way yi nga xam ne ay message la làmb dana nekk ci biir waaye particulièrement it am na benn thème bu ñu dugal boo xam ne oustaz Amar Mokhtar Diop moo koy def mooy ngëneelu xam-xam ak borom xam-xam yi loolu tamit ñu bàyyi ko xel muy thème boo xam ni ñëpp dañ ko soxla ci biir conférence bi waaye thème central bi nga xam ni moom laa wax léegi muy jàmmi penc mi ak li koy dëgëral kooku dañ ko def ay discours yoo xam ni en français arabe ak ak anglais incha allahu taala loolu mooy euh, première euh, partie bi kon programme bi daal noonu lañ ko bëggee incha allah bëgg nañ suñu àggee deux heures ñu commencé nag daal di joxe yenn kàddu yi euh, bu ko defee jox xale yit seeni neexal rawatina ñi nga xam ne ñoo mokkal alquranul karim bu ko defee lu programme bi sori sori 16 fekk ñu jeexal loolu daal mooy tënk programme bi bu dee lu jëm ci wàllu franco arabe bi ren yàlla dafa dogal bii comme ñu ngi tàmbali woon 2015 2016 daanaka booba léegi ñu ngi ci liggéey bi yàlla def may ñu ay promotion yoo xam ne élèves yi génn nañ fi euh, ku am BFM rek ñu yóbbu la cees waaye ñu xam ni ñun ak Babou Salam ñoo bokk programme bi ak yeneen école yi nga xam ni école état la nga xam ni xale yi ku mokkal fii rek boo amee BFM fii incha allah dañ lay génn nga dem pour mën a am yeneen diplôme donte ñu ngi ci programme mu fexe am franco bu yaatu fii nga xam ne élèves dootuñ génn fenn fii la ñuy nekk ba am bac ñu génne leen ñu doog a ñu doog a dem université euh, ñu ngi ci liggéey boobu euh, bu ko defee incha allah comme programme programme franco bi am na France mi ngi tàmbalee sixième wala CICP ba kere euh, ngay am BFM e ah, ñi ngi jàng anglais ñi ngi jàng français ñi ngi jàng arabe loolu daal mooy tënk ci leen li nga xam ne aju na ci franco ba peut-être bu ñu fa àggee incha allah danañ leen présenter leneen lu fa aju mais lii daal moo concerné woon programme bi nga xamee ni jëm na ci wàllu conférence bi di ci woo sëriñ daara yëpp nga xam ne ñoo bokk liggéey bi di ci woo jàngalekat yëpp euh, nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi euh, incha allah di ñaan yàlla ñu àgg ci ci jàmm euh, la 14 mai tàmbale ko ci bisimilah rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilah mu bajaam benn retard ci yàlla may ñu ci ndam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi jiital ci nuyoo bi macha allah xalifa général bu Thiénaba Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla defal ko tawfiix macha allah di ko jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom ñëpp di nuyu macha allah ñu ñu bokkal palaato bi di nuyu suñu kilifa Baye Alpha Cissé macha allah moom it mu jotaleen ñu ko ñu ci des ñëpp macha allah comme ni ko Baye Ñambe waxee rek alhamdulilah ñun dañuy wax ci wàllu organisation bi macha allah ak li li ko aju. comme ni nit ñi woote nañ ba pare macha allah duñu duñu duggaat foofu waaye dañuy wax direct rek ci li nga xamante ni moo jëm ci organisation bi incha allahu rabbi comme ni mu ko waxee incha allah lépp loo xamante ni euh, euh, programme bu ñoŋ la lu lu lu jóge ci anne yi passé incha allahu rabbi euh, comité organisation bi pare nañ pour ci kàttanu yàlla nit ñi gën gisaat beneen image incha allahu rabbi boo xamante ni méngoo na ak alquran ñu ngi ciy def ay liggéey yu ama am solo incha allahu rabbi comme niñ ko daan defee rek balaa xale ya génn dinañ fekk wala sax dañ ñaan bala ñëw balaa jour bi dinañ fekk incha allahu rabbi lépp lu jëm ci wàllum cérémonie bi yem. ci kàttanu yàlla lépp loo xamante ni tamit euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, amateurs yi nekk ci biir incha allahu rabi ajo woon nañ ko incha allahu rabi dinañ ci def seen kéemtulaay kàttan ba coono du fi amee incha allahu rabi xam naan daal ni ñu ko bëggee daal mooy comme ni ngeen ko bëggee rek incha allah moom lu jot rek ci euh, à temps incha allah dinañ ci taxaw ba lenn lu yéexee du yéexee ci organisation bi incha allah lépp loo xamante ni tamit dina taaral bis bi te organisation bi war koo def pare nañ ci lépp Baye Moussa macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. di nuyu leen ñëpp seen tur ak seen sant. di jox seen wàccuwaay. ñu nuyu Baye Assane Seck di ko ñaanal yal na ko yàlla defal wér ak wérle ci daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw suñ toogaay yii nag bu ngeen ko gisee rek war ngeen a xam li ñu indi fii seen xel war naa dem ci li ñu indi fii mooy bisub alxuraan bi. bisub alxuraan bi rek lañuy woote moom lañuy woote moom lañ bëgg mu jëm ca kanam lépp luñ ci mas a am ci ndam rekk ñu ñaan yàlla mu defal ñu ko ren lu kawe suñ njort bisu alxuraan nag defe naa ne ku la ci woo bëgg na la ndax fii dara nekku fi lulu alxuraan mooy njëkk mooy mujj yàlla nañu yàlla defal ñu xam ko ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama mbokki jigéen yi rek laay woo ci mbégte mi ak yool bi maa leen ci woo bu baax a baax a baax a baax mënumaa tudd turu kenn waaye képp ku ma ko gis ci télé bi mu leeral suñu bisu alxuraan bii moom la ñuy woote na ngeen góorgóorlu jigéen ñi moom dañuy wax rek waaye ku ne xam na ni am nañ jom góor gu jàmbaar lañ lu ñu dugg rek bu soobee yàlla dañuy am ndam moom incha allahu rabbi yàlla na yàlla def jàmm ak salaam bis bi yàlla ñu fekk ci jàmm ak salaam. yàlla bu mu fekk bu ñu fekk ci njàqare yàlla na kawe suñu njort ci daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis bi nag moom tànk kanam la am liñ naan bërigo la rek ci mbartaal boo bërëngee mu dem boo bërëngul mu dem yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy bërëng ndax ñu am ci yool bi loolu dong moo ñu fi indi woon lépp li ma bëgg a wax yëpp sax ñiy jiitu wax nañ waaye maa ngi leen xamal ne leen ñun jigéen ñi daal niñ daan taarale bis bi buñ ko fàtte nañ ci góor góorlu ba suñu bis bi taaru na ngeen sañse sañse yu rafet seen pochette yi yàlla na def xéewal ba ngeen ci bëgg a def yàlla dimbale ci yombalal ñu ko loolu dong moo moo am solo ci bis bi na ñëpp ñëw teel a génn sañse baas bi fees dell la ñu sañse sañse yu rafet yor suñu pochette yi yor suñu xaalis di ko joxe te yàlla tax yàlla moo ñuy fay maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp macha allah heure bu ma saana ñëw moom dañuy siggi moom te defe naa bii mooy raw jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Caramba Seck di ko jiital ci suñu xalif général Baye Assane Seck di nuyu suñu mbokk Cissé yëpp di nuyu suñu mbokk Cekkeen ñëpp maam may wote ci suñu conférence biñ daan def chaque année ci daara seydi aboubacar siise comme niñ ko daan defee rek comme ni ko suñu soxna nooy waxee ñuy ne cana ba ak war yëpp di waaw di woo suñu mbokk jigéen ñi nga xamante ne mooy parent d' bi comme niñ daan ñëwee ci conférence bi ñu ñëwee noonu ak suñu daje yi ñu daan daje tëm ñu gën koo daje parce que li des ci conférence bi bëreetul di leen woo rek di sàkku tam liñ seqoon ak ñoom ñu gën koo dëggal ndax conférence bi ñëw na ba pare ñu ngi ñaanal ñëpp itam di xam di leen xamal ni leen conférence bi lu ñu si amoon rek bëgg nañoo am lu ko ëpp ren yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal maa ngi woo suñu mbokk yëpp السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ينوي بكي يب دنيا نما بكال بلاتوبي دنيا سنو كلفة خلفة جنرال كم نكو نيفو جيتو وان وحرك ما ينوي نب باي مكان واو كم لي لي نب وحرك ci lay ci lay eggale mu di euh, bis bi nga xamante ne nii moom mooy euh, bisub conférence su euh, madrasatu Seydi Aboubacar Cissé muy am la 14 mais incha allahu ah di ñaan ñëpp rek ñëpp fekke ko ba mun caa teewee comme nañ ca daan teewee di ñaan suñu mbokk jigéen ñi tamit ah ñuy teel a ñëw ah di gën a teel a def rek li ñu li ñu daan def rek incha allah ci biir conférence bi. ginnaaw loolu nag euh, euh, dafa amoon loo xamante ni dañ ko daan def buñ daan conférence mu di suñu carte barkeelu yi nga xamante ni dañ daan dañ daan dañ ko daan joxe nit ñi di ci barkeelu mu nekk yiw woo xamante ni nii nit ñi daan nañ ko fàggu ah seeni mbokk daan ko fàggul tamit seeni mbokk ndax koo xamante ni nii jël nga ci nga jox ci say mbokk ñu ñu wasaare ko yow yiw woowu yow diñ ci am ba pare say mbokk tamit incha allah dinañ ci am mu nekk loo xamante ni nag jarul xeeb parce que sadaxatul jaariya lay nekk maanaam sarax boo xamante ni rek day dox di wëy ndaxte bu ñu xoolee euh, euh, daara ji lii nga xamante ni tiim nañ ko ñun ñi euh, ñi euh, carte barkeelu yi ak cotisation yi nga xamante ne nii daa nañ ko def ñun parents d'élèves yi bari na loo xamante ne nii dem na ci daara ji te bis ñu fi jógee tamit loolu dafa nekk loo xamante ni luy luy luy wéy la kon mu nekk loo xamante ne nii lu baax la yiw la woo xamante ne nii kenn kenn kenn waru koo xeeb ñu ci soññ suñu bopp di ci soññ sama mbokk yi ñëpp tamit di leen wax ni carte barkeelu yi disponible na képp koo xamante ni bëgg nga ci ci yiw yi wala nga bëggal ko say mbokk rek mi ngi nii ci incha dinañ ci jot ñu wasaare ko incha allah ginnaaw loolu nag ñu leen di gën a soññaar rek nee naa leen ijaabatu daawa moom dafa nekk ci xaqul muslim alal muslim àq bi nga xamante ni jullit bi yoreel na ko moroomu jullit bi wuy ji woote daf ci bokk kon ñu ngi woo suñu mbokk jullit yëpp woote nag li ci gën a neex mooy woote li nga xamante ni yow ak ñi ngi koy woo yéen a ko bokk ndax conférence bi ku ne xam ne ñun waa dëkk bi yëpp ñoo ko bokk kon noog ñu ngi ci woo suñu mbokk yëpp rek incha allah carte yi nga xamante ni mooy carte carte barkeelu yi nga xamante ni dañ koo defar pour daara ji képp ku bëgg a barkeelu sa sa sa di nga am ci daara ji moo nekk nii dafa am yoo xamante ni nag yu 10000 la yu 10000 yi boo ko xoolee fukki volet lay nekk fukki feuille lay nekk feuille bu nekk mille francs la comme sa ku am sa mbokk moo xam ne bëggal nga ko yiw ci daara ji dangay dagg benn carte jox ko ko mu jox la mille francs soo ko boolee day nekk mille mooy carte yu 10000 yi. am na tamit beneen carte boo xamante ni bu 5000 la boobu tamit képp koo daggal rek 500 la lay jox muy doon 5000 francs mu nekk loo xamante ni lu am solo ndax dëgg yàlla bañ ko dalee def ba léegi macha allah suñu mbokk yi ñu ngi ci yëngu bu baax a baax ñu bëggal yiw woowu ñëpp rek euh, numéro bi nga xamante ni nag moom ku ci bëgg rek boo ci wootee mën nga ci am mooy 77. 611 20 43 képp koo xam te ne bëgg na ci carte yi boo yónnee sa dongo dinañ la jox fii si daara ji boo wootee tamit si numéro boobu incha allah diñ ci jot di ñaan yàlla mu may ñu fekke ko ak tal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyoob islaam mooy jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla nekk ci képp kuy dégg suñ kàddu wala képp koo xam ne yaa ngi ci jotaay bi di nuyu tey ziyaara Baye Serigne Thiénaba baay Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér naal yim naal ci diine ji yàlla yàlla mottalil ko ko waaye nuyu boobu dañ ko koy booleek njabootu maam Ahmadou Ndak gépp nuyu imaamu ratib sëñ Seexu Amadou ziyaare ko ñu yaale aimma yi ne ci dëkk bi yëpp waaye nuyu chef de village sëñ Alxasan Ñaan ñaanal ko yàlla moom it mu guddal fanam te wéral ko waaye boole ko chef de quartier yi yëpp du wàcc suñu nuyoo di ko di nuyu suñu wayjur Baye la moom mi jiite famille Cissé di ko ñaanal yàlla mu yokk ko wér te guddal fanam lii ñuy def ci ndigalam la yàlla yàlla gën a guddal aw fanam waaye dañ koy booleeg ñu mu bokkal yëpp ay rakkam ak ay jarbaatam ak ay sëtam yëpp rek ñu ngi leen di boole nuyoo waaye wàcc suñu nuyoo ci ci daara ji nuyu ñi nga xam ne ñoo ngànk liggéeyu daara ji Pape Boubacar Diagne ak sama baay Babacar Cissé ak ñi nekk ci seen suuf te seq liggéey bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu ustaas yi fi nekk ci ustaas Mame Bogar ustaas Mohamed ak ñi ñu bokkal liggéey bi yëpp ci njàngaleem franco arabe waaye nuyu jàngalekat alquran yi mooy sëñ daara yi ak ustaas euh, di ci jiital ustaas Babacar ak Ismaïl ak ñoom ustaas Wilane ak Baye Moussa ak ñi ko seqal ñëpp. ak jàngalekat yu jigéen ñi saydaa yi ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di ndokkeel ndongo yi di ñaan yàlla bis bi ñu jëm yàlla yàlla àggale ñu ci te barkeel ko ndax seen bis la ñoom ñoo ko moom ñoom lañ ci bëgg a teral yàlla yàlla yombal teraanga jooju ba di ci woo jullit yëpp nag ñu jàppale ñu ci teraanga jooju ndax teraanga joo xam ne néew nañ ci loxo waaye bëgg jullit yëpp jàpp ci waaye jullit yëpp teewe ko mooy xale yi nga xam ne yàlla dogal nañ ñu wattu alxuraan ci daara ji ñu war leen teral waaye teralaale bépp ndongo bu ne ci biir daara ji kon loolu mooy woote bi comme ni ko suñu kilifa yi jàllale Baye Alpha ni mu fa jaare oustaz Mame Bokor jaar ca suñu yaanooy jiite jigéen ñi jaar ca Modou Mourox mi jiite ñi génn ci daara ji jaar ci te ñu yor organisation bi ñoom ñëpp woote boobu la ñuy woote ndax liggéey la boo xam ne ku ci nekk am na ci wàll ñun nag ñun la yàlla nattoo ñu jiite liggéeyu njàngale alquran bi waaye ànd ceeg ñoo xam ne ñoo ñuy jàppale te feeñu ñu ci ñooñu ñu ngi leen di ñaanal yàlla barkeel leen comme ni ko oustaz Mame Bokar waxee rek euh, daara ji chaque année day wut benn thème comme ni ko oustaz Mame Bokar waxee mu gunge conférence bi ndax ñii ñëw mën a amaale message bi ñu yóbbaale ñu gis ni comme ni mu ko waxee jamono ji fi mu toll sécurité xaw naa kii ci réew mi ak yu demee noonu bañ gis ni euh, jàmmi pénc bi ak li koy dëgëral thème boobu dina baax pour xale yi mën koo traité nit ñi mën koo yóbbaale. ñu amaat beneen xalaat ni tamit xale yi war nañ leen a joxaale message ak parents yi jàngaloo xale yi. ñu xam dayob xam-xam fu mu toll ak dayob borom xam-xam fu mu toll ci alxuraan ñu ne woon dañuy wut benn ustaas boo xam ni moo koy def ndax xale yi mën cee jariñu parents yi mën koo jariñu ñu tànn ustaas Ahmad Makhtar Diop jiite institut imam Ahmad Ndak Thiès war ñoo defaral thème boobu ci biir conférence bi xam naa luy tolloog fanweeri minute wala vingt vingt minutes incha allahu rabbi moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yóbbu ko ci bis boobu te yàlla kàttanal ko fecc aw làmmiñam ba message boobu mën a jàll bu baax a baax a baax bu ko defee bu dee thème boobu ñu waxoon nag ci jàmmi pénc mi ak li koy dëgëral xale yi ñoo koy def ci français ak arabe ak wolof comme ni ko oustaz Mame ko waxee. ma jëlee tamit xale yi mokkal incha allah ak ñeneen ñoo xam ne ñoo leen di gunge dinañ feeñ ca bis ba ñi nga xam ne tamit wàcc nañ fi alquran dinañ leen jox ay neexal mën naa am lu jiitu bis ba wala ca bis ba bu ca xajee xale yi nga xam tamit góorgóorlu nañ ci franco ba ba seen résultat wax jéggi dayoo lool ñoo nit dinañ leen neexal pour mu soññaale ñi ñi ci des loolu tamit ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp di ci woo nag mbooleem sëriñ daara yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi jiital ci nag ñi nekk canaba ak li ko wër te imaam daam xulle jiital leen euh, ak ñi ko seqal ñëpp dañuy bañ a tudd di desal kenn waaye suñ tuddee jaméen boobu te ñun ñu nekk ca biir suñ tuddee imaam daam rek dina yóbbaale ñëpp ku ci nekk incha allah sa woote dina egsi ci yow ba àndee kàttanu yàlla waaye li génn Thiénaba mooy bépp jàngalekatu alxuraan wala bépp koo xam ne yëngu ci diine rek ñu ngi la ciy woo ndax bis la boo xam ne ñoo ko bokk ñëpp ñu ngi leen ciy woo Oustaz Lamine Sarr ci baabu salaam ndax daara ji alaaka bi mu am ak Babou Salam ak moom cër bi mu ci amaat moom it ñu ngi ko ci woo di ko bàyyi loxo Oustaz Mouhamed Baara Ñeng moom it kazalika relation bi mu am ak daara ji ak ni mu ci bokkee ñu ngi koy woo ak mbooleem jàngalekat yi nga xam ni ñoo ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen woo ñu ngi woo tamit autorités yi ci dëkk bi lu mel ni si préfet euh, lu mel ni maire ak homme politique yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi yëpp di nekk biir Thiénaba ak li ko génn dañuy bañ ñoom it di tudd benn kenn di fàtte kenn waaye suñu waxee ñoom ñëpp rek xam nañ leen te xam nañ daara ji ku ci nekk dinañ la woo incha allah woote ba yell ci yow it dina egsi ci yow famille yi ne ci biir Thiénaba ji famille mag tamit bàyyiwuñ kenn. ndax famille boo ci jël rek ak njabootam mi ngi ci daara ji di jàng kon ñoom ñëpp ñu ngi leen woo dañuy bañ a lim benn famille bàyyi beneen waaye famille yu mag yi ci biir Thiénaba yëpp ñu leen woo di ca jiital ka yàlla jiital ca famille ba mu wàcc ci njaboot gi incha allahu rabbi di woo parents d'élèves yëpp nag moo xam yaay daara la moo xam bàyyi daara yi la waaye woowaale wóllëre yeeg ñëpp koo xam ne daal safoo nga diine safoo nga mooy dëkk beeg ko war yëpp ñu ngi lay woo ci bis boobu association yi ci dëkk bi tamit bàyyiwuñ kenn ay yi bàyyiwuñ kenn ndax liggéey la boo xam ne ku ci nekk am nga ci wàll ku ci nekk boo ñëwee dinañ la wax fa nga war a mën a féete moo xam mbootaayu jigéen ñi la moo xam ASC yi la moo xam association yi ne ci dëkk bi yëpp bàyyiwuñ kenn jamiatu islaam yi tamit nekk ci réew mi wala yu génn dëkk bi yëpp ñu ngi leen di woo ku ci nekk tamit incha allah sa woote bi yell ci yow dinañ fexe mu egsi ci yow incha allah ñi génn ci daara ji tamit di ay ndaw di ay góor ak jigéen am taxawaa ci daara ji te yor organisation bi tamit ñi ngi soññaan ñëpp ku dégg kàddu gi daal nga xam ni yaa war a yaa fi war njëkk yaa fi war a mujj liggéey baa ngi noonu ñu ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax di jaajëfalaat jàngalekat yeeg ñi seq daara ji yëpp presse bi tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ndax ñooñu yombalal ñi ñoom ñëpp ñu ngi leen di di ñaan yàlla mu barkeel seen organes yi ba ko ci nekk la nga ci bëgg yàlla defal la ko ci al incha allah di leen éviter waat tamit ca bis ba comme niñ taxawoo nii ñu mën a taxawaat ca bis ba incha allah. Euh, mbokk yi kon woote baa ngi noonu muy woote institut islamique Cheikh Aboubacar Cissé Euh, bi nekk biir Thiénaba euh, kañ la dimanche le 14 mai 2023 mu nekk onzième euh, sortie onzième promotion fii ci biir Thiénaba ci buntu daara ji ñu ngi ciy woo mbokk jullit yëpp di ci woo kilifa yi di ci woo tamit njaboot gi bàyyiwuñu kenn Euh, bàyyiwuñ kenn nak moy ñepp dugg nañ ndax daanu mo dajul suuf te ku lim euh, di nga desal motax euh, kilifa yi biñu yëkëté yëkkatee liñu wax rek muy ñu ngi wo mbokk julit yëpp ñu ngi wo wa daara ñu ngi wo wa alxuraan te buñu waxé waxee loolu jullit yëpp ci lañ bok ci bis ba nag programme bi ni lay démé buñu ñu 7 h 8 h mise en place lañuy def waaye buñu démé ba 8 h 9 h animation ak chorégraphie des élèves 9 h 13 heures récital de Coran par les élèves di daara 13h, euh, 14h, euh, récital des élèves ayant mémorisé le Coran. 14h, euh, 14h30, allocution et remise des diplômes. 14h30, 15h, nous devons pause def pause prière Machallah, 15h 16h nous devons ñuy dellu siwaat bu ko defee agalé, rendez-vous yàlla may ñu ñu fekke nous ko ca déwén ci pour une paix sociale quel soubassement Euh, mu nekk loo xam ni oustaz Mame Bokar faram fàccee na ko waaye bi ñu ñëwee ci kàddu yi euh, Baye Alpha Cissé mooy yëkkati kaddu xalifa Mame Birane Cissé di bàyyi Baye ànd la euh, Cissé yàlla na fi yàgg te wér Euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi euh, woote woote boo xam ni euh, jóge na ci kilifa yi wàcce ko ci daara ji waaye wàcce ko ci population bi oustaz Mame Bocar Cissé teg na ci ay kàddu moom mi nga xam ni moo nekk fële ca Franco ba wax na programme bi macha allah woote tamit woote boo xam ni woote bu am solo la ki ci topp mooy Modou Mbroox Cissé nekk ressortissant génne fii ci daara ji waaye yëkkati kàddu képp koo xam ni góor la wala jigéen. Euh, bu jóge fii ci daara ji rek ñi euh, ñuy organiser woo mu soññi waat leen euh, ci woote bi yaa nooy sec mooy présidente parent d'élèves yi moom tamit woote na ba mu daaneele soxna faatu Gueye teg na ci ab woote Mame Binta Ndiaye macha allah moom tamit ñëw ci wàllu wi nga xamee ni képp koo xam ni xam na daara rek xam na ni daara moom soxla na ndimbal kon ñoom seen wàllu organisation def nañ ay kartu barkeelu kartu barkeelu yooyu la soxna Mame Binta doon ñëw di ci waxtaan ak ñun Euh, carte barkeelu bii ma téye yaakaar naa ni euh, bu verte bi euh, moom boo ko boo ko yoree bloc la boo xam ni bloc carte bu nekk mille francs la waaye bloc bi entier su ma juumul 10 000 la waaw bloc bloc bu verte bi 10 000 francs la boo jëlee bloc bi bu la neexee nag mën nga ko séddoo ak ay nit ku nekk jël mille francs ñu dajale muy mille francs muy 10 000 francs beneen bloc boo xam ni bloc bu rose la Euh, moom carte cinq cent moo ci nekk waaye bloc bi yëpp boo ko calculer cinq mille francs la ñoom euh, ñoom noonu la ñu organiser woo euh, mu nekk lu am am solo waaye loolu yëpp nag pour am ci ay détails am ci renseignement dangay woote ci 77 611 20 43 boo wootee rek dinañ la gindi wax la naka ngay def ba jot ci carte yooyu kon li olof naan xeebuñu yéemu ñu lépp lu waay am rek mu def ko ci daara ji lépp lu waay am mu def ko ci alxuraanul karim yàlla na yàlla barkeel ci barke Seydina Mouhamed salaahu salaam bi mu daaneelee kàddu sëriñ daara oustaz Mouhamed Cissé moo ci teg ay kàddu yi mottali kàddu yi woote waaye kàddu woo waa daara yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi waaye kàddu woo uh, sëriñ daara yi nga xamee ni tamit ñoom la seqal liggéey bi ak waa dëkk bi waa Thiénaba ak li ko wër bàyyiwuñu kenn kon uh, woote baa ngi noonu gunge nañu nag soxna abu saar Euh, masallah mom tamit mu yëngutu ci daara ji euh, gungé ñu oustaz mohammed euh bo serigne mohammedou roqé sek euh, masallah gungé nañu ci jotaay bi mom ci kanam euh reportage bañuy def ci franco ba dinañ ko ci gis ndax mom ci walu wowa euh masallah amna ci taxaway yu am am solo ñukoy jaajeufal ci liggéey bu mag bi nga xamé ni mu ngi koy liggéey ñu jaajeufal tamit télévision yi nga xamé ni ñoy la la presse locale euh la télé les télévisions de mam ahmadou ndak sek ku ci mel ni Thiénaba TV euh, di jaajëfal Alfi Ibrahima Sarr directeur waaye Talla Sarr mi nga xamee ni moo yore caméra bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax macha allah euh, Thiénaba 24 bi nga xamee ni euh, suñu doom moo ko yore muy Talla Diagne moom tamit liggéey bu am solo bi muy liggéey ci daara yi ak ci diine ji moom tamit ñu ngi koy jaajëfal ci turu direction daara yi abu Aboubacar Cissé Serigne Mar Diop Mar qui n'a jamais marre Euh, Samsu TV macha allah moom tamit ñu ngi koy jaajëfal ci taxawaay ci liggéey bu am solo bi bi nga xam ne mu ngi koy liggéey Ismaïla Diédiou euh, ànd ak waa Gindiku FM euh, Gindiku liggéey bu mag bi nga xamee ni macha allah moom tam mu ngi koy liggéey ci wàllu presse ci canaba ak li ko wër ñu ngi koy jaajëfal ci liggéey bu am solo bi taayiwuñu toqiwuñu kon loolu rek moo doon wooteeb institut islamique Cheikh Aboubacar Cissé ci kanam di ngeen ànd ak ñun ñu dem franco arabe ba defal leen fa won leen ni leen daara ji de am na annexe boo xam ne mu ngi yëngatu ci wàllu franco euh, waaye mu ngi yëngatu tamit ci wàllu internat kon internat bi foofu la féete ñu boole ko ak franco arabe bi ci kanam rek dinañ leen won euh, mbégte mi nga xamee ni moom moo am foofu euh, ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Moussa moo àndoon ak yéen ci seen waxukaay joxante dig daje yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yal na yàlla def ko musaawaan bawan ci tiana ba ak liko wër assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bu len faté abonné ci sen chaîne youtube samsu tv jant bi léral aduna té activé cloche de notification bobé ngéni sen ci sen écran ñak ci abonné dafa woru bu fi fi abonné da nga abonné wu ci yéne ci abonné ci yalla té yalla nak fek kay japp ci dara nan yalla kay japp ci woru fek lu yalla japp nga japp ci mo gëna woru té samsu tv yalla ci japp bégee ba aljana daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana di ko bégee